jàngale e ma yore fa ay taalibe di jàngale e, man nag maa ngi tudd Souleymane Ciss yàlla dogal gox bi nga xamante moom laa nekk e, ñu fal ma ci imaamu jàkk e, yàlla dogal nag ma yëngatu ci wàllu daar suñu dëkkandoo bi nga xamante ni mooy wujj caam e, ñu nekk ci benn koñ bi e, moom mu yore fi ay xale yoo xamante ni xale yi waa koñ bi e, di leen toppatoo bi nga xamante ni mbir mi am na yàlla dogal ci kàttanam mu def dogal boo xamante ni mooy làkk boo xamante ni dañu nekk ci guddi gi rekk ñu dégg ni koñ bi mu ngi làkk léegi làkk boobu moom mu dem ba ñëw ci daara ji làkk daara ji eh, bagages yi yëpp ba mujje waaye kenn gaañuwut eh, matériel moom moo fi yàggu eh, moom mi nga xamante ni moom mu yëg loolu E, def ci ay taxawaay yu rafet mooy ni wóor na ci koñ bi sàkku ndimbal ñu indi ay yére ay dàll yooyu yëpp mu indil ko daara ji e, moom bi mu fi ñëwee ñun sant nañ ko gërëm nañ ko e, mu xam ni moom def na defu defuñu dëkkandoo waaye def na defuñu jullit mooy ni sa mbokk bu xewlee nga jël ko nga def ko siit bopp e ñu ngi koy sant ci loolu eh, moom mi nag li tax ba lii ñëw moom ñi muy àndal te mooy asusek ak sil ajo léegi ñoom lay àndal ci liggéey bi e yàlla dogal ñoom ñu laaj ko mu wax ni li nga xamante ni moom moom ma gën a yitteel mooy ni xew-xew bu amoon ci suñu koñ yàlla dogal daara bu fi nekkoon mu lakk ba mu jeex e, loolu mooy sama yitte moo ma gën a yittal e, tax na ba loolu doon na xalaat boo xamante ni xalaat bu rafet e, ñoom ñu am yëg-yëg ci waxam am ndimbal boo xamante ni ñoom ñu indil ko daara ji mooy ndimbal bi nga xamante ni moom moo fi teew yàlla dogal na ñoom indi nañ ko fi gis nañ ko waaye ñun amuñu leen lu dul sant leen waaye amuñu leen lu dul gërëm leen parce que xam ni seen taxawaay ci ñoom dañuy jàppale daara parce que yëg-yëg bi ñu am ba ñu indi lii jombul seen yéene ci kanam ñoom yéene nañu lu ëpp lii kon ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla na leen yal na yàlla dooleel leen e, yoon bi nga xam di moom la ñu xàlli pour dimbali doomu aadama yal na yàlla defal leen ci ndam bi jaayi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñi nga xam ci ñooy suñu waa kër gi. E, ki nga xamante ni moo nekk sama koti bi mooy Ibrahima Mbeng ñoo nekk suñu soxna yi ñoom ñoo fi nekk kon ñu ngi jërëm góor ak mag ak ndaw ki nga xamante ni moo toog ni eh, sama taawul moom moo toog eh, ne kele moom ci sama doom bokk kon ngi sant ñëpp eh, ñu ngi sant ñi nga xamante moom la wujj àndal eh, ndax am mbooloo mi ëpp na nii waaye comme ni mu ko waxee rek eh, mooy nii bu sañoon woon ñëpp xale waa koñ bi ñoom ñëpp dañuy ñëw parce que bu mu ko waxee mënu kenn léegi bu mu sañoon xale yi dañuy ñëw kon yéeneem ci daara ji rëy na kon yàlla yàlla fay ko xolam di jaayu si Seydina Muhammad صلى الله عليه وسلم